nekk ci buntu pharmacie yi di ñaan wala nga nekk ci buntu supermarché yi di ñaan xale boobu mu màggee lan la war a nekk mooy day wër di ñaan nañu jàngal xale yi éducation bu baax tamit éducation de base dem liggéey nee naa la fóot liggéey la boo toggee restaurant jaay liggéey la boo demee sax di jaay café ak beñ dugub liggéey la jéem leen a dem liggéey te bàyyi seen ñaan gu metti gi ngeen nekkee nekk di taxaw ci buntu pharmacie yi ak di taxaw ci buntu supermarché yi di ñaan ñépp am problème instant bi nii ki nga xamante ne moom ngay ñaan moo la ëpp ay problème daf ko mënta Euh, wax rek mais moo la ëpp ay problème nañu éviter yi ñuy def te dem liggéeyi nee naa la bu fekkee danga nekk jigéen yàlla jox la doole ju mat sëkk nga am ñaari tànk am ñaari loxo war nga jombale sa bopp di def yenn yi di dem di ñaan ak di dem di def nag su dul noonu en plus lan moo ma gën a metti mooy dañuy boot seen doom yi wala ñu gàddu seen doom yi nekk ci mbedd mi di ñaan bu ko defee xale boobu bu màggee lan lay tàmm ñaan lay tàmm dem leen ngeen liggéeyi fóot maa ngi fi jaay restaurant café gerte caaf sax boo ko jaayee mu jar di nga ci mën a euh, dund nee naa la lépp looy jaay ci àddina yàlla na ciy teg loxo ah daal di koy barkeel kon sama mbokku jigéen yi yéen laay wax te boo leen gisee nag ñu nga nekk diryanke bu ne muut ah fees dell yortaat bu ne muut dem di ñaan jombalewuñu seen bopp dara nekk ci buntu pharmacie buntu hôpital yi nga xamante ne ay malaad ñoo fa tëdd tey malade yooyu ku leen yëkkati woon tey dañuy sant yàlla même bu ñu amul dara sax dinañ ut lu ñu def sax lu dul nekk naan dañuy ñaan bàyyi leen seen ñaan gu métti gi ngeen nekkee nekk ay diriyanke yu nu muut xeesal ba weex tàll nekk ci mbedd bi di ñaan lu nekk ngeen koy def civiliser leen ñaan amatul ci àddina dem leen ngeen liggéey loo jaay ci àddina danga day jar nit ñi dañ koy jënd banaan gert te loo munti jaay nit ñi dañ koy jënd tey moom sama vidéo ci loolu la doon wax ñi nga xamante ne dañuy taxaw ci buntu pharmacie yi ak ci buntu kii rek di ñaan laa doon waxal tey ma di leen ñaax di leen wax ne àddina dara yombul liggéey lu mu la mayul leneen du la ko may kon dem leen ngeen liggéey te sàmm seen njaboot googu ndax mooy tax xale bi màgg nekk quelqu'un bu ñuy ku ñuy woowee quelqu'un ndax xale bu fekkee da koy boot di ñaan wala demal na sa yaay di mu may ma nàngam bu màggee ñaan lay tàmm kon sama jigéen ñi dem ngeen lem leen ngeen liggéey te bàyyi ñaan tey sama vidéo ci loolu la doon wax I love you so thank you